oui. commencé da ba pare. c'est bon ba pare. Euh, depuis certain temps dañu constaté que ni violence bi dafa bëri ci université ci campus social dañ tàmm ne étudiants yi chaque moment saa yu nekkee am problème ay jaas la ñuy génnee di xeex seen biir bi nga xamee ne nag nit ñu ëpp loxo ci la directeur kuddu jox ñu ay ndigal nañu dugg ci chambre yi def chambre par chambre jaas bu ñu fa fekk ñu récupérer ko loolu li ñu def nii li sécurité bi def tey loolu ci ndigalu magget Sène directeur du cours moo ñu jox ay instruction ne tey nañu def ras nañu renfil chambre yëpp chambre par chambre lépp lu fay arme blanche ñu dugg génnee ko tey bi ñu xëyee loolu lañ def on a fait tous les pavillons chambre par chambre li nga xam ne fekk nañ ko fa ci ay jaas yi récupéré nañ ko mu ngi nii ay gourdin la ay ay ay yat ay paaka ay gourdin ay jaas yi ay ciseaux ay marteau ay ciseaux ay marteau ay barre de fer lu nekk récupéré nañ ko ci nga xam li fi nga xam ne mooy néegu étudiants yi lépp ci wàllu des na nag liggéey bi des na c'est comme ça dañuy continuer pour mën a def zéro arme zéro arme blanche au niveau du campus social ci ci loolu la ñu màggat seen sant ci loolu la ñuy dox lii ñuy def nii dañ koy continuer bëgg nañ ba nga xam ni léegi lépp luy arme blanche dootoo ko gis